wa rahmatullah asalaamaaleykum mbokki Sénégal asalaamaaleykum mbokki àdduna ñu ngi leen di nuyu di leen ziar bu baax a baax a baax di leen nuyu ak uh, tristesse di leen nuyu ak naqar di leen nuyu ak njaaxle wax dëgg yàlla te xam naa ni noonu ñu koy dundee noonu la ko ñëpp di di képp kuy sénégalais ak ku du sax di dundee ndax nag euh, wax dëgg yàlla perte bu rëy bi ñu am guy yu mag yi nga xamante ni yeewu nañ tey jii ci suba ji euh, ñu ni ñu daanu nañ kon euh, dañ naan inna lillahi rek wa inna ilayhi rajiun di leen ñaanal yàlla xaare leen ci àjjana yi gën a kawe ci barke seydinaa Muhammad waaye tiis wi moom ak naqar wi ñun ñëpp a ko bokk waaw kon noonu lay nduyoo sunu kilifa diine yi di nduyu sunu kilifa aada yi di nduyu sunu kilifa jàngu yi di leen ñaanal jàmm ju sax dàkk te di ko sàkku ci si ñoom te di ñaan yàlla ñi nga xamante ni tamit jiitu ji nañ yàlla na yàlla saxal yërmande si seen kaw ci barke dinaa Muhammad ñi ngi nduyu ñi nga xamante ni tamit dañoo tëdd tawat ndax nag jamono ji ku ne xam na ni tubaar fakal lii di coronavirus moom lëmbe na réew mi lëmbe na àdduna waaye nag yàlla mi nga xamante ni yërmandeem yaatu na lool yàlla na yàlla def yërmande ci njaboot gi yépp def ko ci àdduna bi yépp ba nga xamante ni dégg rek dinañ si doy incha allahu rabbi may nduyu ñi nga xamante ni tamit dañoo féete ci kaso yi maa ngi leen di ziar bu baax a baax a baax di leen jox seen wàccuwaay bu a baax a baax fu si waay nekk rek yal na la yàlla génne ci xat-xat ba nga dellu si sa njaboot ci jàmm ak salaam kon ñoo ngi nuyu ñëpp di ziar ñëpp di am contentement ci ñëpp wax dëgg yàlla xam naa dañuy àggale te démb bi rek waaye nag wax dëgg yàlla démb moom dina wuteeg tey lool lool macha allah waaye nag sant yàlla bu baax a baax a baax a baax alhamdulilah waaye balaa ñuy jàll fenn rek damay daal di nuyu ki nga xamante ni mooy sunu invité invité tey di La Linguère euh, la jak maa ngi lay ziar bu baax di la ma saw liñ bokk. waaw di ma te euh, di ziar Sénégal yëpp di ziar àdduna yëpp di di baalu di baal àq yi tamit euh, perte bi ñu am si suñu xalif généraux yi jóge fii. nekk na perte bu doy waar bu doy waar lépp ci benn bu gi dafa di loo xamante ni defe naa ne jàngat bu ñu ko naree jàngat sax est-ce que du ub suñu bopp lool ñu dolli ñaan dolli ñaan dolli ñaan ñaan yàlla yàlla génne fi musal ñu ci euh, ci ndog mhm. musal ñu ci balaa bi fi wàcc euh, yëkkati ñi tëdd te kenn bañu tëdd ñu nekk ñu koy nettali incha allah bu ëllëgee euh, di di massawu ñëpp mhm. di di jaale ñëpp di jaal suñu bopp yi tamit ndax ñun ñëpp ñoo ko bokk ndax ñëpp la njaboote woon mhm. di jaal waa Cambérène waa Yoff waa ak fépp foo xamante ni rek mun nañ ne laayeen ndax taalibe bu ne mhm. am na ñoo xam ne ku ci nekk ak sa kiiwu taalibe mhm. di jaar laayeen yeeg waa Canaba Canabay di jaar di di jaale ñëpp jërëjëf euh, la jak maa ngi lay béggee bu baax baax di rafetlu kàddu yi bu baax a baax la Linguère mhm. waaye nag euh, dama beneen invité dañ koy daal di nduyu rek ziar ko muy Yunusa di directeur rédaction maa ngi lay nduyu bu baax di la ziar di la jaale bu baax liñ bokk yow tamit jërëjëf euh, soxna Jëri Ngoone euh, maa ngi lay nuyu nuyu bu baax euh, sama yaay buy la jàkk di feddali bu baax sama cofeel ci moom ci nangul du ñu nangul invitation bi mm-hmm. nuyu bu baax ñi nga xam ne ñoo seetaan bitim réew ci Sénégal yëpp ñi ñuy seetaan ci suñu page Facebook bi seetaan ñu ci ñu réseaux sociaux yi mm-hmm. di leen sant gërëm bu baax a baax di it ni ngeen ko def di jaale bu baax Euh, Sénégal wëgal këpp jaale it euh, umma islamique bi mhm. jaale waa Canaba jaale waa Layen mhm. jaale Sénégal mhm. xam nga fi ni fi ñu toll ak mbas mi ñu xëy suba lii ni mel dal suñu kaw ku ne war na laa yee mm. te xam naa daañu ci xóot bu baax euh, bu ñu duggee ci waxtaan bi parce que li waruloon waxtaan bi démb mooy ci ñu réseaux sociaux yi naka la ñuy fexee ba suñuy suñuy nekkin gën a mën a nite mhm. anaka tey ji am na tey ji lépp lu ñuy wax rek mhm. am na fu ñu sukkandiku mhm. ci suñuy wax suñu kàddu tey ji di la sant la gërëm bu baax di di yeesal suñu njaal euh, ci euh, àdduna wërngër këpp ci ñi nga xam ne tey ji euh, génn nañu àddina jërëjëf jërëjëf Younoussa ñu ngi lay bu baax te di la ma saw bu baax a baax di teg njaalu président général bu Africa set suñu njiit ñun ñëpp ñu ngi àndandoog mu ngi àndandoog waa kër gi yëpp képp koo xamante ni rek personnelu Africa 7 nga di jaale àdduna bi yépp ñi nga xamante ni ñooy sunu xalifa général yooyu di leen ñaanal yàlla yërëm leen te xaari leen àjjana yi fi daw si ci sey Seydina Muhammad te nag leer gi nga xamante ni yàlla jëlee na ko fi yàlla na ko yàlla wàcceel boppam tiimaleel ñu ko ndax nag kilifa gu génn rek àdduna ci ci ci ci àdduna day mel ni leer goo xamante ni day wàññeeku ci ñi nga xamante ni ñoo nekk foofu di ko dund kon yàlla na yàlla yokku ñu leer yàlla yokku leen leer ñoom tamit tàbbal leen ci àjjana firdawsi yu gën a kawe ci barke Seydina Muhammad ma koy jaale ki nga xamante ni mooy Mame laay maa ngi ko koy jaale bu baax a baax Laye Seydina laay Issa Laye maa ngi lay jaale sa xalifa boobu sa kilifa boobu maa ngi la koy jaale bu baax a baax a baax di ñaan yàlla na leen dëddoo jàmm ci barke Seydina Muhammad waaye laalingeer bu ñu ñëwee ci waxtaan bi maanaam réseau sociaux fu mu defee lu bon rek am na fa lu baax ndax tey jii bi ñu yeewoo ci fajar mm-hmm. euh, annoncé nañu ni Euh, suñu kilifa yi génn nañ àdduna kon loolu lu baax la waaw euh, bu fekkee ci vitesse su information ni muy demee am na ci côté bu baax ak côté bu bon mhm. parce que am na ñoo xamante ni réseaux sociaux dafay tax euh, parfois sax mun nañ jaale nit mhm. mun nañ mun nañu annoncer décès nit fekk nit ki ay waa këram jotaguñ ci. Mhm. ay njabootam jotaguñu ci ci ci euh, ci nouvelle bi loolu gis nañ ko fi du benn yoon du ñaari yoon mais dafay tax par exemple aujourd'hui bu ñu xoolee benn réseau social on va dire une application comme TikTok où il y a beaucoup beaucoup de jàngat ay jàngale yu fa am ci suñu mag yu baax yi xam nga sëriñ Touba maam maam laay ku ci nekk mhm. xam nga sëñ mhm. Cheikh mhm. ngay dafay tax loolu bu ñu ne c'est un côté positif parce que euh, ñu bare xamuñu woon peut-être seen message mais à travers le réseau TikTok ñu bare xam nañu léegi message yi suñu mag ñu baax ñi ci ay euh, nit yoo xamante ni quand même jël nañ seen temps di def ay compilation réseaux sociaux euh, nit ku nekk nag li nga am ngay duggee marché. Mm-hmm. bu ñu ne lu bon rek fa am. Mm-hmm. man tey bu ñu ne ma lu bon a fa am dama naan d'accord am na lu bon mais man pour man li baax moo ci ëpp. li baax tey mooy tey dem naa fa ba am fa njaboot. Mm-hmm. ñoom Younousa mi ak ñoom Mohamed la keneen ak keneen ak keneen ñoo xamante ni tey réseau moo tax ñu xamante mais ñu dem ba am nu ñu mel donc mënuma gis man. Euh, safaan bi nekk ci réseau sociaux man man nangu ma ko gis en tout cas. les gens le voient mais man nangu ko gis. am na solo am na ah. solo lool macha allah ndax nag euh, bi ñu xëyee ñun ñëpp rek depuis démb ci guddi ñu ngi ñuy dugalal ay messages yu nii woon nii ndax loolu dafa am solo macha allah kon foo fekk lu bon rek am na lu baax te nag defe naa ni nga jël lu baax la mooy njariñ la mm-hmm. ndax nag ñaan yan cey ñaan rek yàlla mën na si def yërmande macha allah waaw ziar yan cey ziarante yërmande ga cay daw rek yàlla mën na ci def yërmande kon sunu kilifa diine yi nga xamante ni làkku nañ tey wax dëgg yàlla ku ñu xool sax xam ne tey suñu xol neexul li ñuy wax dañuy dañuy dañuy tato ni nii rek waaye li ñuy wax sax ndeysaan ànduñook sunu xel ndax nag dafa metti dafa metti ndax leer bu wàññeeku ci ñun la waaye dañuy ñaan yàlla mi nga xamante ni am na yërmande yàlla mi nga xamante ni macha allah moo sañ mooy dogal yàlla na leen yàlla teg yërmandeem yàlla na leen yàlla tàbbal ca àjjanay firdawsi ya ca keppaaru sayduna muhammad sallallahu alayhi wa sallam bu ko defee rek defoon nañ leen uh, benn portrait uh, si sunu ñaari waajur yooyu noonu ñu daw seetaani ko te ñëwaat léegi incha allahu rabbi juddu ci weeruk octobre atuk junni ak juróom benn bokk ci ñaari famille yu baax Seydina Abdoulaye Thiaw di doomu xalif bi njëkk di Seydina Issa ak soxna Ngaan Diop soxna soosu bokkoon ci famille Damel bu Kayoor Serigne Abdoulaye daan dajale taalibe yi si lu teel daan def ay dayra ak it ay conférence fépp ci biir réew mi ci avril atuk 2001 nag ginnaaw làquk Seydina Maam Alassane Thiaw Laye si la kii di Seydina Abdoulaye Thiaw Laye wutuka ci xilaafa gi mu nekk juróomeelu xalifak imaam Mahdi bu njëkkoon nag Baye Abdoulaye comme ni ko ñu bari daan woowee daan na yor kàdduk xalifa ya woon ginnaaw génnuk àdduna papam liñ ko gënoon ràññee nag bokkoon na si moom Baye Abdoulaye maamam di imaam Mahdi moo xamle woon ñëwam laata juddoom maanaam Seydina Limaamu dafa waxoon ni dina am am ku juddu kuy tudd Abdoulaye wuuteeg lool ak Abdoulaye yi te itam bés bu njoolaayam tolloo ak buntu sama tur dina daal di siiw te itam sama mission dina daal di law ci juróom-ñeent fukki at ak juróom benn Serigne Abdoulaye Thiaw Laye daal di wuy ju boroomam naka noonu itam ba Seck di jooy seen xalifa bii di Serigne Abdourahmane Seck di doom ci Maam Talla Seck nekkoon xalifa bi njëkk bu Amari Ndak Seck Serigne Abdourahmane Seck daal di nekk juróom-ñetteelu xalif ginnaaw bi mu wuutoo Serigne Cheikh Ahmed Seck génnoon àdduna ci juin atuk 2020 ginnaaw at ak ñaari weex yi mu nekkoon ci boppu xilaafa gile xalifa bii di Serigne Abdourahmane Seck daal dina wuy ji boroomam ca Maroc ci noonu nag groupe Africa cassette rajo ak télévision bi ñu ngi jaali umma islamique bi yépp di leen ñaanal yàlla yokk seen leer jërëjëf ñu ngi jaajëfal Aba bu baax a baax ci élément bu am solo boobu mu ñu indil macha allah waaye Yunusa defe naa ni ñoo seetaanandoo élément bi mu nekk kilifa yoo xamante ni dañ daan dajale njaboot gi saasu ne. Euh, métti na. Mhm. waaye li nga xamoon mooy seen mission ci kaw suuf mattal ni nañ ko mat sëkk. Mhm. bi ñu jaaxlee te mois de mars bi nañ naan nañu na kilifa yi wax parce que fi mu toll nii. Mhm. Euh, ñoom rek ñooy wax ni ñu déggal leen. ndaxte lépp loo xam ne yaa ngi koy wër defe naa barki démboo Njaay biñ ne euh, bu ñuy julli. tabaski ñoom ñëpp dégg na leen ñu wax mhm. soñu ñu ci ñu respecter mesure de barrière mhm. soñu ñu ngir ñu rafetal suñu diggante mhm. soñu ñu ngir ñu wëy di teg suñu tànk ci li nga xam ne moom la moom moom moom la suñu borom digle ak yonent bi sallallahu alayhi wasallam seen jaan wàcc na li ñu warloog ñun def nañ ko lan lañu war a def ñun je pense que tey ji loolu la ñu war a fa la ñu war a orienté xanaa tiit ak orienté waaw tiit tiit dafay am ak jaaxle ak jàqare bakkan bu ñam dund dina ñam dee mhm. ay kilifa lañu mhm. te kilifa bu génnee këram wallaahi ñëpp sentir ko mhm. ne am na lu muy muñ am na lu muy gis am na yërmande goo xam ne suñu mboroom moo koy moo koy sol ci xolom mu koy mën di ko partage ak ak doomu defuñ ko ci ñun. Mm-hmm. defu ko ko ci ñun mm-hmm. ak ñeneen ak ñeneen. Mm-hmm. ñun dañuy xëy di di waxante lu bon. dañuy xëy ci euh, ci xool naka laay mën a yàqee. keneen ak keneen ci loolu lu ñu dicté loolu tey jii dama naan ñun yàlla daf ñu suturaal. xam nga suturaal lan la boo demee ci yeneen réew. mais ci Mali ak yeneen ak yeneen. lu ñu am amuñu ko. amuñu ko. amuñu tey jii des hommes religieux yoo xam ne tey jii ñoo ñoo fi teewal. Mm-hmm. ñi nga xam ne ay kilifa. Mm-hmm. Cheikh Amadou Khadim Rasoul ba léegi la mu jàngale woon am na kenn koo xam ne bu ñu ko gisee dañ koy gisaat. Mm-hmm. ak yeneen ak yeneen boo demee ci kër diine yëpp te loolu la ñu la ñu la ñu la ñu dëggal. di ko di dundal ba ba ba yàllaa yombi ba ñoom ku ci nekk saa ci loolu lañuy teg seen tànk ba yàlla di jël seen bakkan. waaye nag ñun ban dégg-dégg lañu am ci seen dund. lañuy ñuy yëkkati ci ay kàddu muy lu baax. soññ ga ñuy soññ ngir ñu am yërmande ci suñu biir mhm. soññ ga ñuy sonn ngir ñu woyfal àddina xam ne tey jii euh, man sa maa ngi nii di wax mhm. waaye bës dana ñëw naa fi bàyyee ko waaye dana fexe ba naa fi ma def lu baax rafet damay faral di wax ne ñun pour revenir ci suñu réseaux sociaux yi parce que mhm. moom la ñuy wax suñu génération ñu rek ñoo nekk génération boo xam ne tey jii bis bu ñu génnee àddina te yàlla na yéex waaye dana ñëw deedu jaas suñuy doom ak suñuy doomi doom. Mm-hmm. bu ñu ñëwee bu ñu bëggee xam la seen maam doon def jëriñoone bu ñu ko bëggoon def dañuy dem tappe. fan ak xaw dina wax ne fi mu toll suñu suñu émission bi ñu ngi koy suivre en direct ci ci mm-hmm. Facebook. Mm-hmm. ñu ngi koy suivre en direct ci chaîne YouTube bi ñu ngi koy suivre en direct ci ci ci ci internet bi. alors lan la fa doon def. ban taxawaay la fa amoon. yan kaddu la daan yëkkati. muy kàddu yu baax yan soññ la daan soññu askanam est-ce que daan def bu demee xool. fi guñ fi tàggee sa maam lañ la tàggee. dëgg la waaw ah, kañ est-ce que du ma ñëwee xool. Mhm. gis na ah man day sëtu jëri ngoone laa. Mhm. xooloo jéeri lu muy def. Mhm. xam nga kooku rafetul tey tey jii. moo tax su ci ñun ñoo gën a gën a nekk dans une position boo xam ne inconfortable parce que un jour ou l'autre on va quitter ce ce ce monde là. mais nañu fexe ba bàyyi. way wu rafet way wu rafet. loolu lañ fi mun a bàyyi xam nga ñuy tey jii ñu ñu tudd ñu tey jii ba ñu dañoo baax rek a wóor. wallaahi ñaata nit ñoo génn àdduna tey. wallaahi wallaahi du ñoom kese. wallaahi. ñaata nit ñoo génn àddina tey ji mais ñoom lañ ciy tuddu ngir li ñu représenté ci diina gi mm-hmm. Mm-hmm. ñoom lañ ciy tudd ngir valeur yu baax ak yu tebe yi nga xam ne daal lañ ci gis mm-hmm. ñoom lañ ciy tuddu ngir héritage bi nga xam ne jotoon nañ ko ci seen maam ñu ñu gën di ko fësal ñoom lañ ciy tudd te nag lañ leen joxoon en comme en terme de responsabilité je pense que ay na yéwén doxal nañ ko ba mat sëkk ñu lan lañ ci jàng c'est là aujourd'hui foofu la foofu la toog waxtaan sottante xalaat. Mhm. si suñu borom moo mën a jël moo mën a jël jëmm yu tedd yooyu. dafa taxaw seetlu daal jëmm jëmm yu sell yooyu. sëgam su waxuma man mi nga xam ne ci ci tooñ laa laa ci ci ci ci njuumte laa dëkk. ci bàkkaar laa ñu xëy ko jëm moom nga xam ne ñu si bëri ñoo xam ne dañuy xëy seen kurus lañ leen dégg. ak alxuraan ak ah. suñu borom moo jël jëmm yooyu. waxuma la ñun ñu nga xam ne ci ci ci lu bon la ñu dëkk. alors à un moment donné aujourd'hui dem yooyu métti na. mais c'est une manière aujourd'hui ñu toog xoolaat. xoolaat on on fait une ce qu'on appelle une introspection. Mhm. xoolaat suñu bopp. Mhm. interroger suñu bopp. Mhm. sama jëf sama sama diggante ak sama bopp d'abord. man a chaque fois su may analyser balaa maa set keneen damay set sama bopp ba noppi. est-ce que que jubóog na ak sama bopp. jubóog sa bopp mooy lan fexe ba li nga xam ne waroon naa ak yow nga def ko su ma su ma toggee sama néeg man kese xam ne kat am na am na laaw rab bi mu may xool la may xalaat xam na ko. la may waaj jëf xam na ko. Mm-hmm. waaye mu suturaal. est-ce que est que nu ñuy suturaalante suñu biir. déedéet déedéet. voilà voilà des genres de de questions yoo xam ne. Mm-hmm. Mm-hmm. foofu metti na. mais c'est des c'est des occasions pareilles yoo xam ne war nañ ci mën a jàngat. ngir ñu jubbantiwaat suñu bopp. defaraat suñu toogaay. waaye defaraat suñu jëflanteeg ak suñu suñu borom bu ko defee bu ñu ko defee rek incha allah daañu ci jëlee sinon ñii. mag ñii ñu fi dund ba jógee fi dañu jàng ci ñoom dara. yàlla na yàlla nañ fi yàlla bàyyi li ñu fi des ak gum ak. akus néew yàlla na leen fi yàlla bàyyi may leen wér may leen. gudd fan te nag yàlla ah? dimbali leen. Ah. Euh, du ñu fekkee mukk lu ñaaw. déedéet bu naree ñaaw. Mm. dañuy dem ay xaritu suñu borom la. oh looloo ma tiital. bu naree ñaaw dëgg dëgg dëgg dëgg bu leer ne fa ñu jëm baaxut suñu borom euh, euh, lépp lu mu lu bind suñu nite ko ci gënal moom day préféré am na ñenn yoo xam ne dañuy julli di ñaan. yenn yii ñu bañ ko fekkee. ñu bañ ko fekkee dëgg la mais Younoussa loolu lu doy waar la ah. lu doy waar doy waar doy waar ngay wax nii wax nag dégg la laaj lu doy waar ngay expliquer nii ah te mooy li ma wax rek maanaam leer yi bu bu jeexee ñun fu ñu jëm ci lëndëm gi ñu nar a dund gan façon lëndëm la. kan ko teg suñu euh, euh, la Linguère lëndëm googu gan façon lëndëm la ak mbëkkante boobu ñu nar a mbëkkante. ñun suñu biir loolu dafa nekk lu doy waar. ñun commencé nañ bëkkante du du lu bees. kalax ñu ngi bëkkante. oh là en train de se ci kaw lan ci kaw ñàkk sutura. ci kaw yàqante. Mhm. ci kaw def lépp loo xamante ni c'est contraire à ce que ces hommes ces grands hommes nous ont enseigné. vraiment. Euh, waxuma la ñii ñoo ci mujjee. Mhm. mais képp koo xam ne doon nga fi xalif général. ak ku mu mënti doon euh, defe naa ne ñii ñun su ñii mujj ñëw est-ce que li ñu daj ñeneen ñi dajuñu daj nañ ko. Mhm. parce que nag euh, boo amee seetlu ku ñu ci tabb xalif général doo ko tegal deux mois bu amoon. karaw gu ñuul karaw gi weex tal màgget ndax ñi ko wéeru ci kawam. Mhm. te sama genre gi ñoo ci ne ay defkat lañ. yan yan yan bi day diis. yan bi diis mu sonn. Oh. ndax nag Sénégal dafa nekk ñoo xamante ni man buñ ma ko yenoon damay rasu. Hmm. damay bàyyi parce que du ñu ci wàllu diine gi. ci di ci lépp. man hmm. responsable bi ma ko joxe sax jarana rasu. Hmm. parce que dañu toll foo xamante ni nit ñi xamatuñu ñu jëm. on tourne on tourne en rond. comme je dis tout le temps ce pays part en freestyle. on en freestyle. fi mu ne nii fu neex waay de jaar. muy xale yi muy mag ñi et yu nu Younoussa dafa ne la xale yi suñu demee ëllëg bëgg nañu xam ku ci nekk lan nga def cest à génération bi mun nga xam automatiquement lan lañ def mhm. mais xale yi yooyu mhm. kan moo jur xale yii tey di def ay bêtises mooy mag yi jëlu woon seen responsabilité tout le temps di dis euh, pourquoi ñun ñu am nuñ ñu yere mhm. te ñun jëluñu temps pour yer suñu doomi nit ñu yere moo indi tey xale yi di mm. def yenn bêtises yi ñu leen di seetaan mm-hmm. fekk ni ñun parents yi ñun ñoo faillir ces enfants n'ont rien fait mm-hmm. en fait ils ont fait des choses mm-hmm. mais ces enfants n'ont pas été éduqués comme ñun ni ñu jëlee suñu temps éduqué ñu ni ñu jëlee suñu temps di wax xale naka ngay toogee naka ngay waxee naka ngay waxee ak mag naka ngay loolu ngay gis ci réseaux sociaux yi mu ciy transparaître loolu ngay gis tey ci réseaux sociaux yi ay mag di saagante bu ay magum jëmm di mu nekk lu ñaaw àdduna bi yëpp yëpp ay mag di wax di weddi mhm. ay mag di ànd xëy démb tey ñu xëy xarabante mhm. euh, réseau yi amplifié ko parce qu'on va parler des réseaux le ko parce que maintenant la connexion franchement le pass internet mm -hmm. est tellement moins mhm. cher que ku na neex euh, ak site internet yu bari tamit ak yi nga xamante ni ñoom i tamit euh, am nañ ci part de responsabilité une grande part de responsabilité dans mhm. mais loolu yëpp buñ buñ koy def à qui la faute ñoom li yoonu saa wax yooyu. wax mhm. yàlla wàccoon nañu ak mhm. parce que tey ku bëggoon a jàng baax sax war koo mën a jàng ndax internet bi sax ku ci bëggoon jàng baax jàng alxuraan jàng yenn hadis yi jàng jàng jàng defe naa di nga xam foo koy jàngee. maa ngi lay wax sànq TikTok par exemple. di nga gis ay message muy mhm. jàll mhm. ngay déglu ay ay ay ay ay ay conférence suñ doon def mhm. ngay am yooyu yëpp nga koy gëstu yooyu am solo donc loolu bu ñu xëy tey rek ne euh, baaxul mënul nekk gis nga nit li ne ci yow ngay joxe li ne ci yow mooy transparent mooy mooy mooy feeñ ci sa lépp mooy feeñ ci ta façon de vivre dans bu dee baax la mooy feeñ bu dee bon la mooy feeñ bu baax moo nekk ci sa biir. Mhm. boo demee ci réseau yi. di waxtaan ak sax wala ngay waxtaan ak ki balaa dara di ko nuyu di nga jàmm sante même boo àndul ak moom ci opinion sax. Mhm. di nga xam naka nga koy waxee ci teggin. Mhm. mais bu dee yow. amoo yar. wala wala sa xol neexul. nga bëgg ko sëf loolu moo andi ça part dans tous les sens. Mhm. ça part dans tous les sens. Mhm. nit ñi ñoo war a yaraat suñu bopp man ak keneen ak keneen ak keneen ak keneen ñoo war a xoolaat suñu bopp mhm. introspection bi muy wax chaque jour ñu am jàngat bu ne gàññ tous les jours deux xalif généraux mais lii moom jàngat euh, international la non jàng buy ma bu ngoo dañu fàtte ko ah lii nii. bu <laughs> Sénégalais rek yoo xamante ni yàlla ak yonent bi rek lañ daan Sénégalais moi je te dis qu'ils ne consomment le buzz maintenant avant c'était un buzz par jour maintenant ils en font comme un médicament un matin un midi un soir. Ah, mais yaay booy loolu yéeme na de. ah yéemewul mais moo fi xew nit da xam li fi xew lii moo fi xew. ah loolu day dalul sama waa ji. Younouss non bokkul. waaw may profité tamit. Euh, si occasion bi. wax dëgg yàlla naqar sax lañ nekk waaye nag euh, bés bés sa mhm. Euh, waa Africa 7 yëpp commencé ko ci sunu président directeur général ñu ngi lay souhaiter un joyeux anniversaire. Mm. di la wax happy birthday to di la ñaanal nag. gudd mm-hmm. fan ak wér. Mm-hmm. di la ñaanal li nga mbébét ci kër gi nga xamante ni mooy Africa 7. yàlla na ko yàlla sottil ci barke Seydina Mouhamed ndax képp kuy personnel personnel wu Africa 7 rek xam na sa yéene ci ci ci kër gi nii mhm. kon euh, dundal wéral yokkul ñi ngi lay ñaanal ci barke Seydina Mouhamed suñu kilifa yi fi génn àdduna tey yàlla na nga leen sut aw fan mhm. euh, te yàlla wàcce barke bi ci yow ci barke Seydina Mouhamed waaye nag xam naa damay jaare fii rek daal di leen ubbil ligne bi bu ko defee yéen ñi ñuy seetaan ndax nag euh, émission waxtaan yéen a ko moom ñun dañuy toog di leen a ko présenter rek mais yéen askan wi yéen a moom seen émission te it wax dëgg yàlla xam naa ni suñu xol naqaree noonu la seen xol naqaree bu ko defee ñu daal di leen ni ubbil ligne bi ngeen mën a dugg joxe seen participation incha allahu rabbi yéen ñi nga xamante ni yéen a ngi féetee fii ci réew mi mën ngeen dugg ci 33 861 79 59 yéen ñi nga xamante ni yéen a ngi féetee bitim réew mën ngeen dugg ci cent 00 221 142 cinquante 54 bu ko defee ngeen joxe seen euh, participation ci émission bi waaye tamit dañuy dem ba yoof tamit jaale ki nga xamante ni mooy sunu magu bopp wax dëgg yàlla di taalibe Baay Laay di Adja Diallo ñu ngi lay jaale bu baax a baax a baax a baax sa sëriñ boobu di ko jaale tamit ki nga xamante ni mooy lii ka ndaw di ko jaale ki nga xamante ni tamit mooy muxaa ndax nag euh, ñun suñu dëkkuwaay yooyu dafa bari waa waa waa yoof bari ay laayeen macha allah ndax nag ñun ñëpp benn lañ sax waaye nag euh, dañ leen koy jaale di leen ko masaw bu baax a baax a baax a baax tey it di leen wax nii ñu ngi partagé wax dëgg yàlla douleur bi ak yéen macha allah Younoussa waaw euh, soxna Jëri mhm. damay delluwaat ci ci li nga xam ne moom la sama yaay laal lingeer mhm. wax la jàkk dafa am solo xam nga bu ñu demee ba dee bu njëkkoon lu diis la ci ñun yaa ngi tudd tey léegi sama anniversaire man su ma ci yeggee c'est teyoo tey sama sama yaram dafa diis xam nga lan la dama judd le 10 août ma tuddee génn àddina le 11 jàngat la ki ci ko am xel xam ne tey yaa ngi fete sa sa sa sa bésu judd waaye ëllëg dana ñëw nga topp nga ko toppalante bi. ñaari mm-hmm. dati. Mm-hmm. alors mooy moo lay war ne gis nga booy dund di teg dee sa kanam nga wéet nga ñàkk wéet nag. parce que nag euh, léeg-léeg euh, sama genre gi li ñuy wax ak li ñuy jëf dafay wuute. Mm-hmm. mën nañ toog ci télévision yi foog ne ah diw la mu wax moom de daa baax. gis bu génnee fële léegi nga nga nga nga. nga xeeb ko nga xeeb ko. waaw loolu am na doomu aadama nag da bañ ñu xeeb la. da ni ngay bañ ñu xeeb la nag mu ci say jëf. waaw ki baax ki bon yàlla rek ko xam. Mhm. waaye nag fexeel ba la ngay wax mu méngoog sa jëf. Mhm. nga assumer ko. Mhm. loolu moom moo ñu moo ñu moo ñu të. nañu jàngat bu baax ci ñi nga xam ne génn nañ fi àddina xam nga tey jii nii ci lay mat euh, ñeenti bi mu fi Sëñ Abdou Aziz junior génnee àddina daan dam naa bi muy génne àddina sax dafa bañoon ne nañ may bañ a woowee junior parce que maa gën a mag ci kër gi tey la mat tey la mat ñeenti at ah la def quatre ans ndeysaan jàngat la mhm. <laughs> si parfois booy booy booy jàngat mhm. baax na ngay convoqué lu bëri anam génn àddina mhm. li mu fi wax ci lu baax kenn xamul nu mu toll li mu fi yëkkati ci kàddu yoo xam ne boo tëddee sa ruq rek toog toog taal sa internet dem YouTube Facebook saa yoo demee fekk ko fa. Mhm. anam mhm. ñoo ñu di doon ko déglu. Mhm. ñooñu tey doon naqarlu génn àddunam ñoo ngay gis ci ne la naka naka su dul noonu. ça veut dem ba miin de. dañ ko miin miin. génnu àdduna kilifa yi nga xam ne tey jii c'est des stabilisateurs. xam nga waaye Younoussa euh, euh. de changé wul de de fa mu nekkoon la. nekk ba tey ñun dañ ko miin nag. waaye léegi waaye léegi hmm. dafa gën a bari. dafa gën a bari dafa gën a bari buñ ne ña bariwul dafa <laughs> dafa gën a bari parce que dama ni dee changé wul dee dee la rek. dee gu njëkk ga. mooy ak deewu léegi benn la bokkul lan mooy changement bi lan mooy changement bi avant danga daan dégg diw dee na am na ku dee ci ah, koj bi. Ah. mais sérieusement c'était quelque chose. parce que dee mi ngi ci koj bi. Mhm. mais léegi nga baal ma mais comme bàccum gerte. ah da ngay yeewu tout une journée. man nee naa leen keroog icône su ma da sa statut mhm. tu ne veux même plus regarder parce que inna lillahi wa inna ilayhi rajiun rek mooy toppante loolu rek mooy toppante muy xale muy mag ñuy toppante nga gis ñii seen yaay ñi seen affaire bi nekk loo xamante ni entre temps nit ñi di ŋàññante ba dama ne est-ce que nit ñi ñi ngi gis li xew li xew ah, parce que xëy na yow li nga gis am na foo xam ne bu ñu fa tolloo ku ci ne mhm. da ngay taxaw mhm. defe naa war nga mën a taxaw lii kii di wax sànq def jàngat si parce que ñu ne la yow tey euh, sa yi sax sa yi ak sa nokki moom la neex. wallaay am nga jamono ji fuñ toll jamono joo xam ne saa boo yeewoo waajalal sa bopp bés boo yeewoo rek waajalal sa bopp. kon li waa ji wax dëgg la neen nañ sol yére yu rafet yi. te lekk ci su xaalis yi denc. waa ci ñuy denc xaalis ñooñu waa waaye ñun moom bu yeboo chaque jour rek balaa ngay génn rek yoral njàpp solo lu set solo lu sell jàpp sa ñàmbur. wax du ñu la ma surtout. maandu te réer na senegal de. nit ah, ñi maandootuñu de. ah nit ñi mënuñoo maandu. te mën nañ wax ju ñaaw mën nañ yàq der mën nañ waxal nit lu ñu xamul mën nañ soos ay waay ngir yàlla xool leen ci lii lii lii lii xew nii. xool leen ci lii xew nii ngeen maandu defe naa ni jullit maandu te bu fi ustaat toogoon tey jii ma laaj ko ko maandu te mooy li war a njëkk ci jullit ndax boo maandoo di nga moytu lu baree baree baree. bari ci sa moroomu doomu aadama. dañu toll ci jamono joo xam ne wéet dafa am solo. gis nga nit ku baax. dafay ñeme wéet jamono ji ñu toll surtout da ngay ñeme wéet ñeme doon yow kese. Euh, doo ca wax lu sax xamul. defe naa léegi wàññi connexion sax daf ciy baax. avant nit ñi dañ daan parce que léegi euh, wax bu ñaaw da ngay dugg. Mhm. man man li ma naan yow saa xam na ko man wax bu ñaaw daf may nasaxal samay yaram. Mhm. su ma duggee gis sax ñiy rayante ci réseau bi. Mhm. Euh, damay génn. su ma leen waxee benn wax na leen bàyyi leen li ngeen di def nekk leen nit affaire yooyu pare naa ci génn naa ci ku ma ci am séqal nag danaa la woo su ma la gisee na la bàyyi lii ngay def bàyyi la lële mm-hmm. mm-hmm. mais keneen dama lay bàyyi nga dem parce que tamit am na ñoo xamante ni neexu ñoo waxal mm-hmm. ŋàññante bi ñàkk suturaalante bi moo ñu yóbbee lii yëpp te ñàkk suturaalante mais mais la Linguère foofu tamit danga laal point bu doy waar boo xamante ni actualité la fii si Sénégal mhm. ndax nag léegi nii nii boo ubbi woon sa téléphone dugg Facebook di nga gis direct mhm. te direct bi ŋàññante boobu lay doon en tant que yaay mhm. say doom di commentaire di seetaan nga ŋàññante boobu noonu ay kilifa di ko def ñu leen mat yaay wala ñu leen mat papa yow loolu naka nga koy dundee man du ma seetaan direct du ma seetaan direct gis nga ci jamono ji ñu toll nii boo bëggee mucc dangay dégg li neex di def li neex di wax li neex dangay am noppu garmi mhm. làmmiñu garmi mhm. bëtu garmi tànku garmi mhm. yeme la sa tànk man du ma seetaan lu may gaañ man film horreur sax du ko seetaan parce que daf may stressé seetaan li lay gaañ seetaan ñuy wax nit mu ña lu ñaaw sa bës ngi ñëw fii ak ah, du du ku ku deful amul de ku feeñlewul moo am. Mhm. mais ñun ñëpp ay defkat lañ. Mhm. chacun a un degré différent. Mhm. mais ñun ñëpp ay defkat lañ. sunu borom nag di la suturaal. yow tey nga jël sa temps jël sa connection jël sa table jël sa chaise toog sañse ba baax. def recherche si yow. def recherche waaye yow. baax sax waaw bu ñu defee recherche. am uh-huh. keneen ku ko andil keneen andil la. keneen uh-huh. andil la keneen andil la. Uh-huh. gis nga foofu ñu toog noonu. ndax nee naa ne Sénégal chaque jour ñu xëy méchoui nit parce que nag lekk nit la. ah fii nit ñu bare ñu ngi dox. te dee nañu intérieurement. parce que les gens les ont tués intérieurement. dañuy dagg sa xol bi. non ce pays. Oh. dëkk bi c' est un c' est ce pays c' est un nañ ko ngeen baal ma mais c' est un monstre. pression sociale bi am Sénégal gisuma ko ci benn dëkk. les gens te dañ lay ŋeeñ. ŋeeñ di la ŋeeñ di la ŋeeñ ba nga xëy yow li nga doon def ci lu baax sax danga naan est-ce que li may def baax na ba pare boo moom xam nga li ma koy wax parce que yoonu sax mhm. dafay def social te yàlla rek a tax te loolu lañ maak moom ci la ñu xamante mhm. sonn lool ci nit ñi nekk ci àll bi laaj ko lu mu dégg mhm. ñun dañuy nekk ci social amul lu ñu dul dégg. ndeysaan te fekk ne yàlla moo tax ñuy. def xooluñu ci sax dara c'est-à-dire à la sax ñu dañuy togg saa ñun ñàkk lañ fayda de mais ñun ñu ngi dawal nit ñi wallahi seetuñu ci dara. Mhm. on est c'est notre engagement on a on a décidé. Mhm. de travailler. seen digganteeg seen borom la te xoolal buñ koy def dañ koy def tellement spontanément mhm. que nit ki nga xam ne xamul lu spontané danaan. kii mënul nekk waay. Mhm. kii li muy def nii am na nu mu demee am na lu mu ci ut. gëmu ko gëmu ko dóor la. baatu dóor ba mu ñëwee ba tey la Sénégal gën a yàqu na dóor dina yomb Sénégal. waaw ndax dóor yomb Sénégal. Mhm, naa mhm. feqe bari Sénégal waaw naa feqe dañ fi bari. parce que li nga wax sànq naan Youssa wax na ko ne. dafay fekk li ngay wax méngoog li ngay jëf. li ngay jëf fii Sénégal ñu bari dañuy affiché indu dawal ko dañuy ñëw wan la ne ñoo gën. mais est-ce que jotul tamit ñu defaraat toogaay yi. tëddaat suñu euh, ndegee naay xalaataat sëñ Abdou Aziz yal na yokk leer. amiin yaa rabbi. nee na ba tàyyi nañ tàppee xol yi. oh tàppe xol yi waxul moom defe naa dañu tàppe xol yi ñooñu ñu comprendre nañu mokkal xol yi. xol yi parce que ah ñu dëbbu ñu dëbbu ñu dëbbu suñu bopp ba ñu. <laughs> nañu tàppe xol yi astaxfirullah mais c'est vrai <laughs> nañu tàppee xol yi. ku ne jël sa cours di dëbb ku ne dëbb ba mu mokk. Eh, loolu sëñ Mountakha ñëw nañu. mbégte nañ ca nekk. nekk leen ca rek. mbégte mi mbégte mi. bu reetaanee. sa xol seddu wallaahi wallaahi wallaahi. c'est-à-dire yàlla daf ñu. yàlla na fi yàgg yoo xamante ni. Mm-hmm. chaque chaque c'est-à-dire on chaque kilaafa. Mm-hmm. chaque xalifa. bu kenn demee di nga gis yàlla andi keneen koo xamante ni suñu kanam. non yàlla bëgg nañu ah. Mm-hmm. te keneen suñu kanam koo xam ne kooku war nañoo mën a jàngat. ci moom mais dëgg la. mu indi la xol bu sedd. boo koy xool sa xol sedd. boo koy ci ci këru diine bu nekk dina ci am kenn koo xamante ni da koy xool. mu mel da lay delloo si. Mm-hmm. Mm-hmm. c'est vrai. mais ñun. ñoo nanguwul dellu ñoo nanguwul dellu si daal ñun ñoo bëggul baax. mais ñi bëgg baax nañ baax. ah waaw dafa neex. Ah, dafa noppale. baax neex na noppale. dafa noppale ndax nag euh, sama sang ba Serigne Saliou Mbacke yàlla na yàlla yokk leeram. Yunusa da daan wax naan. Ah, euh, doomu aadama ñaari biir lay am biir bi nga xamante ni yàlla sunu borom moom moo ko yoral boppam heure bu xëyee dina la jox loo ci dugal waaye am na biir boo xamante ni muy sa biir bàmmeel yow si sa bopp en personne kese kese kese yaa mën a liggéey li nga xamante ni moo la fay fekk bu ëllëgee kon lekk loolu nekk jàngat boo xamante ni dafa dafa dafa tënk lépp daal lu doy waar la xaaral ma jël euh, ki ci ligne bi ñu ñëw nga développé ma ci tuuti allo asalaamaaleykum salaamaaleykum. maaleykum salaam. ñu leen di ziara. waa ñu ngi delloo ziar bu baax sëñ bi. di ziar Sénégal yépp yépp yépp xalifa généraux fi jóge. ñu ngi lay delloo ziar bu baax di la saw bu baax tur bi ak fooy wootee. Silla la Rufisque. Silla Rufisque bisimilah. Euh, yal na leen yàlla xare àjjana firdawsi. amiin yaa rabbi. bi ci topp euh, seen nga plateau yi ngeen di def. Mm-hmm. bu leen ko bàyyi de xam nga lu tax. waaw. bu ngeen ko bàyyee ñeen ñoo xam ne da waruñoo wax ñoo fi toog di wax. dëgg la. parce que amul benn staff bu nit ñi bàyyi mu witt léegi. dëgg la. moo tax nañuy jàpp tey wax tey digle tey tere rek. Mhm. incha allah. képp ku am xalaat bu rafet ci réew mii mhm. am am am gis-gis bu leer. Mhm. amatuloo droit noppi ndax jafe-jafe yi bari na dérive yi bari na. dëgg la dëgg la. nit ñi dañoo mel ni tey duñ li ñuy def. dëgg la wallaahi dëgg la. am na soxna si wax na ko sànq. xoolal xëy ci benn nit boo xam ne xamuloo ko dara mais nga jël uniquement pour rechercher loo ko xamal wala loo ko mën a déggal rek pour yàq ko. Mhm. loolu nekk lu doy waar. waaw lu doy waar jël sa temps uniquement pour écraser benn ma aadama lan nga ciy gagné lan nga ciy gagné yow nit ki. doy na waar. am na yeneen priorité yoo fi ne yoo waroon góor waroon góorgóorloo def pour tabax sa réew. dem mhm. na sa réew kanam doo ko def ci da ngay fexe écraser nit rek yàq nit mhm. yàlla na ci yàlla na daal ba lii lii yàlla fi yàlla jëlee. amiin am ñun ñun africain sax en général damaa xam damaa def am na lu ñu yàlla am na am na natt bu ñu yàlla teg daal ñu africain nit ñu ñun ñi. wallaay silla wallaay dëgg la bi duñ ko def. ndeysaan. ñun dañoo jël dañoo jël diine lislaam ñu nit ñu ñuul ñi. Mm-hmm. di ko jàng. Mm-hmm. guddeeg bëccëg. Mm-hmm. tubaab yi ñoom dañ ko jël di ko pratiquer. lislaam xamul toon xamul yàq. déedéet. wallaay dëgg tubaab yi yoon yoonu kenn nekkul ci yoonu kenn ku nekk yaa ngi nekk ci la nga war a nekk. Mhm. mais ñun dañuy tardé ci loo xam ne amul lu ñu benn benn. intérêt dëgg la. mais léegi jërëjëf Sylla jërëjëf jërëjëf. jërëjëf ci taxaw seetlu bi ñoo la gën a kontaan Sylla. jërëjëf euh, mi ngi noonu ñu ngi nuyu waa Rufisque ñëpp di ziar ñëpp di masawu ñëpp tamit euh, defe naa ni Sylla ñu ngi lay jaajëfal ci li nga indi ci sa xalaat. Euh, Younousa. Mm-hmm. soxna Diéry biir bàmmeel. waaw est-ce que nit ñi ñu ngi ciy bàyyi xel. <laughs> waaw ko bàyyiwul xel de moom mu ngi lay bàyyi xel. <laughs> bu baax. <laughs> moom kañ moom. non moom bàyyiwul la xel ma nga toog fa mu toog jàpp ñàmbara. moom ci këru dëgg dégg-dégg la maanaam. Mm-hmm. boo boo boo boo mel ni man. nekk ca loola neex. Mm-hmm. fàtte ne bés dana ñëw. fàtte yàlla. parce que bés dana ñëw. te bës bu dul jaas la danga nga dee. Mm. moom day toog di la xaar. mooy wax tam ma ne la boo ko bàyyiwul xel mu ngi lay bàyyi xel di la xaar. Mhm. sa jëf rek nga fay nga fay nga fay. kese loo am ci alal nag. Mhm. loo taaru taaru. noo mhm. mënti mel bés dina ñëw. xam na parfois. mooy li li kilifa di wax léegi kilifa gi génn léegi. si la bu baax si la. ko déggee ak saa xam nga xam ne ku ku gëstu la. ndeysaan kuy kuy ku ku xam ku am dégg-dégg. wax la dégg-dégg la. Euh, nit ñaa ngi wax. ñu ngi wax de xam nga la moo des jëf. defe naa tey jii. Yunusa jëfa des euh, yóbbaale ki ci ligne bi. ñu ñu jël ko. salaamaaleykum wa rahmatulah. waaleykum salaam. Euh, soxna si ñu ngi lay dalal. allo. allo. oui salaamaaleykum soxna si tur bi ak fooy wootee. maa ngi wootee Gambi. waa Gambi ngay wootee ma chérie baal ma nga wàññi télé bi tuuti rek bu ko defee nga wax ak ñun ci téléphone bi. waa baax na. waa ayca ñu ngi nuyu waa Gambia ñépp. ñu ay tur bi nan la. allo. ayca mu mel ni dañuy dégloo télé bi moo tax euh, jokkoo bi du mën a du mën a du mën a leer dangay wàññi télé bi rek bu ko defee boo duggee rek incha allah ñu mën a déggante déggante bu neex waaw ñu ngi nuyu waa Gambia ñëpp di leen ziar bu baax a baax euh, Younoussa nga nekkoon ci jëf. waaw waaw foofu lañuy ñu nattee góor dëgg. foofu la ñu nattee citoyen dëgg. foofu la ñu nekkee jullit dëgg. Mhm. ngëm fa lañ koy nattee. nattee lépp ci lépp mu ngi. si biir jëf euh, te ñun. léeg dañuy déglu am ay kilifa yoo xam ne tey ji ndeysaan dañuy toog wax a wax a wax ba bëgg de wax xam-xam ba pare ba pare génn def la la neex. Mhm. damay far damay far di wax naan ñu ne ñu am chance Sénégal mhm. suñu borom du ko bëgg ndeysaan. daf ñoo daf defal lépp ngir rek mun ñoo ginti. Mhm. jox ñu ay kilifa yu mag yoo xam ne tey jii mënoo wax ci histoire ru euh, àddina. te doo leen tudd. bépp fan. bépp fan. dëgg la de. mënoo wax tey ji ci histoire yu bëri te mënoo leen tudd. waaw loolu nag bu la ko yàlla euh, sasee euh, boo demee ci yeneen bu njëkkoon boo demee ci yeneen pays bu ñuy wax kilifa nit ku nit ku weex la daan doon. Mm-hmm. foofu am naar ak ñëw te léegi nga gis ku mel ne Cheikh Madom Xaadim Rasul ku mel ne kenn kenn koo xam ne sénégalais ni yow. Mm-hmm. di la jox di la orienté. ayca ayca ayca Cheikh Ahmadou Bamba la ñu kii dañ ciy taxaw rek jël ki ci ligne bi ñëwaat asalaamaaleykum allo. ay ca xëcc bu daggul dikk ñu ngi lay euh, xaar ci numéro yooyu ñu affiché ayca. alors donc moo leen leer ne aujourd'hui mhm. ñàkk ñu ñu ñuy wax. Yunusa Yunusa Sénégal dafa riche ndax da dem Touba fekk fa Cheikh Ahmadou Bamba Khadim Rasoul ñëw laayeen fekk fi Maam bàyyi Laay dem Tiwaawoon fekk fa ji Maalik mais mais dem yeneen dëkk yeeg yeneen kunta kunta yeeg ñas-ñas mais ñun. pourquoi mënuñu nitee. jërëjëf ki nekk ci ligne bi dafa allo. pourquoi mënuñu nitee. ñu dañu ah, dañ naan ay jullit lañu te duñu def yëfi jullit man looloo ma yéem. waaw waaw di dina dina kii nag man nag du ma du ma maasaloo ñëpp nag xam nga dina am mooy. li ñu man sax maa ngi ci biir. waaw duñu dina am ñenn ñoo xam ne yaa yàlla ay na yowin ñu ngi. Euh, def seen ñu góorgóorlu waaw. Euh, damay dellu si waat si suñu suñu sujet rek. Mhm. di nga réseaux sociaux yi lu muy bëri bëri bëri bëri euh, defante ak xeexante ndeysaan am na ñu mel ni laa jàkk yoo xam ne lu baax rek. lu baax rek lañ fay def dëgg la. waaw dañuy xëy soo ba ngoon di xool naka laay mën a soññee doomu aadama. Mhm. Euh, El Hadj Diak dama nekkoon euh, dëkk bu mel ni Bakel dem fa ndeysaan sonn lool lool léeg-léeg sax dama naan ma est-ce que liggéeyuma sax da coono ji ku ko teg <laughs> nga gis bu may envoyé message di ma soññ moom xamul ne. soññ googu mooy soññ am na leneen muy def ci man yëgu ko sax. te réseaux réseaux sociaux moo tax. ngeen xamante yéen mu ngi def mu ngi def lu donc tey jii. Mhm. Euh, li wolof daan fa euh, fa ndox daan taa. boo fa demee fekk fa tepp tepp tepp waaye mhm. na ñu am njot. Mhm. am yaqin ne di nga ñu baax ñaa ngi ci réew mi. waaye nag dafa fekk ne lu bon a neex a neex a fësal. Euh, boo dem ci internet yi. te moom la ñuy fësal ah ñuy fësal leen. gis nga saa yoo xëyee te gisoo sa bopp ci statut yi. Mm. gisoo sa bopp ci site internet alhamdulilah. waaw boo xëyee rek gisoo ci turu la ci benn benn benn site internet. titre wuñ la fenn. Mhm. ah nel sant maa ngi sant yàlla bu baax a baax ba defuma li ñuy waxee <laughs> accident accident de wax parce que nag kàddu dafa am dafa am dafa dafa dafa diis. dafa diis ñu jël ki nag. ci ligne bi euh, waa sëñ bi ñu ngi lay nuyu di la ziar bu baax. jàmm rek tur bi ak fooy woote Aliou Ndiaye Touba. Aliou Ndiaye Touba ay ca bisimilah alline yow rek lañuy déglu. ci Africa 7 wala. Africa 7 nga nekk yaa ngi en direct. waaw naka yitte. jàmm rek alhamdulilah. alhamdulilah tabaarakaala. bien. ñu ngi leen di ziar bu baax di leen masaw tamit li xew ci réew mi yépp waaw waaw waaw waaw ñoo ngi masaw suñ ñaari xalifa généraux yooyu wàcc daal. Mhm. ñu ngi ñu ngi ñu ñaan yàlla euh, fañ jëm dàqal leen fi ñu jógee. amiin yaa rabbi. liggéeyal nañu lislaam bi lislaam bépp a ñàkk tey. ndeysaan dëgg la. waaw xalifa laay ak xalifa Sénégal mm-hmm. ñu ngi ñaan yàlla suñu borom yërëm leen te xaaral leen àjjana amin yaa rabbi amin yaa rabbi di bàkk Cheikh Mamadou Fadal amin yaa loolu loolu ngeen di waxtaane nag moom wax dëgg yàlla mm-hmm. loolu ngeen di waxtaane wax dëgg yàlla moom moo yaatu ci réew mi lool ndax dañoo dañoo am réew moo xam ne dafa nekk réew mu neex a dëkke mm-hmm. nekk réew mu neex a jaamoo yàlla suñu borom. Mhm. ndax réew moo xam ne yaa ngi naan sa Sëriñ Tuubaa mi ngi ci tëdd. wallaay xalif xalifa Tiwaawan mi ngi ci tëdd. Mhm. tey ak suñ ñaari xalifa yi génn nga xam ne ñoom yàlla nee yonent bi ne yàlla nee yonent bi nee na nekk ay at téeméeri at yu mag ci yàlla nee yonent bi nee na. ndeysaan ba no ñuy wuyoo loo xam ne wax dëgg yàlla da ngay da ngay da wuyoo loo xam ne boo jëfee rek sa sa jëf weddi loolee nag as góor su ne war na koo daw. dëgg la. as góor su ne war naa daw loola te euh, léegi euh, jamono bi dafa dafa dafa dafa dafa dafa demee noo xam ne si nii kenn ku nekk war ngaa war ngaa tëj ci sa bopp xoolaat sa bopp. Mhm. ndax ndax maanaam da digle loo xam ne si nii sax bu ëllëgatee dañ lay seen nga nga jëf loo xam ne yow la nga digle woon day day mel ne day mel ne yàlla ak yàlla mhm. te loolu moom moo yaatu ci réew mi loo nan nan nan delluwaat yàlla suñu borom ndax feebar yi ñuy wax yépp nii. wallaayu xakim euh, ñàkk du ko faj lenn du ko faj lu dellu ci yàlla suñu borom tuubal ko ndax gis nga suñu borom dafa wax ci alxuraan ne. Mhm. bu bàkkaar yi ba bu musiba yi wàcc ñi gën ci yéen bu ñaanee du man du ma nangu seenu ñaan. Oh. te loolu moom loolu moom moo xew jamono. loolu yéeme na nan delluwaat yàlla suñ borom ne kenn ku ne tuub sàkk sarax te te te te jéggalante bàkkaar yi. te jàng ci xasida yi ni ko Serigne taxaa diglee. moo am suba incha allah incha allah yàlla yóbbu ak jàpp ak salaam incha allah ñëw Touba feneen foo ko defee rek baax na. incha allah te yéeneente jàmm. jërëjëf jërëjëf sëñ Alioune suñu yéen suñu yéeneentee jàmm rek yàlla wàccee ay xéwal. incha allah raxas xol yi. Mhm. mbas mbas mi fi am yëpp dara dara dara ay ay ay kii la rek ay balaa la rek te balaa bu xasee di ñëw amul yéefar amul jullit day wa suñu borom da koy wàccee rek. dëgg la baax na jërëjëf jërëjëf sëñ jërëjëf sëñ Aliou ñu ngi lay jëfal euh, di jaajëfal waa tuubaa ñëpp di ziar képp koo xamante ni rek yaa ngi yeewoo Touba di ñaanal Serigne Mountakha Mbacké yàlla na fi yàgg lool lool Mbacké te wér euh, di ñaan yàlla tamit suba ci journée xasida bi ku képp ku mën bu dee benn xasida sax nga jàng ko yéene ko àdduna bi yépp rawatina fii nga xamante ni fi la ñuy yeewoo muy Sénégal yàlla def fi jàmm te bàyyi ñu fi suñu njiit yi nga xamante ni ñooy suñu kilifa diine yi yàlla bàyyi leen fi ba ci kanam ñu gungeem ba ci kanam a kanam a kanam ci barke dina Mohamed waaye laa lingeer mu mel ni réseau sociaux yi ngay yëngu loolu li ci nekk chaque jour ah yombul de parce que yow yow yow ci mbaax rek ngay dox ci social rek ngay dox ci xool koo xamante ni bëtam xonq na nga waxtaan ak moom xam nga seqanteeg moom lu baax loolu tamit euh, des fois di nga ci am ay difficulté ou pas bon dinaa ci am difficulté comme hmm. xam nga ku si nekk bu fekkee da ngay jéem a prêcher la bonne parole comme on dit hmm. Euh, tu peux ne pas être compris. Hmm. parfois nit ñi duñu comprendre peut-être yow sa démarche. sa démarche si si. Euh, réseaux sociaux du li may yëngu man damay liggéey am naa sama liggéey am naa sama njaboote et mhm. mais dañu dem ba benn instant comme ni may ni may ni may waxtaanee ak nit ñi nii lii mhm. Younouss Sadd di wax nii yàlla xam na ne fàttalikoo ma ko sax mhm, parce que ci ci ci ni nga koy waxatee boo tàmmee di waxtaan ak ay nit di leen di leen soññ di waxtaan ak ñoom parce que léeg nga gis nit moom am na mu mel nga xam ne kii nekkul xam nga léeg-léeg ça na nga def xam damay def benn parfois jeu boo xam ne nit ñi peut-être dañ koy trouver c'est puéril damay dawal parfois nii ma romb kenn ku taxaw muy jigéen surtout jigéen ñi sa kanam wàcc mhm. ma wàccee sama vitre mais yow li nga sañse rafet na de waaye looy kii nga gis kooku ree nga avancé nga romb benn kii am benn waay bu lay waaj a mbëkk nga ne ko grand yaa ngi déconné de mais yow lii lan la nii mu sourire nga avancé gis nga loolu en fait c'est il faut ah. qu'on apprenne à être humain mu mel ni am na ku nekk ci ligne bi alo asalaamaaleykum. maaleykum salaam. waa sëñ bi ñu ngi lay ziyaare bu baax a baax tur bi ak fooy wootee. ah. allo. ayca mu mel ni xëcc bu daggul dikk. waaw soxna si ñu ngi lay ziyaare bu baax a baax a baax. maa leen bu baax. seen waxtaan bi am na solo macha allah. jërëjëf tur bi ak fooy wootee. man maa ngi wootee ba Mbambilor Komiko. Mbambilor ay ca bisimilah ci waxtaan wi. yaa ñoo ngi sant bu baax. tur bi ah, nan la ah bi am na solo macha allah. ay ay satu. waaw ay ca bisimilah ay ca bisimilah. seen bi am na solo torop torop ba tey maa ngi leen di jërëjëf ay satu. yéen ci jàmm baax. sant nañ bu baax a baax. Ah, li ngeen di wax am na solo torop torop torop. loo ciy li jamono bi nekk na jamono boo xamante ne bii nit ñi moom foog ngay am koo xamante ne kii da lay di la suriloo kon femme boobu léegi li mu wax nii. Mm-hmm. am na solo torop torop. Mm-hmm. waaw ñoo ngi kontaan bu baax. ci seen émission jërëjëf soxna Aysatu jërëjëf jërëjëf. ah waaw maa ngi ciy dolli daal ñu nit ñi daal gën a yéenante jàmm. Mm-hmm. gën a bëggante. Mm-hmm. gën a soppante. Mm-hmm. jërëjëf parce que adduna bi dafa jeex ba pare. jeex na ba pare dara desatu fii wax mu egg sax suñu borom la neex. wallaahi dëgg la wallaahi dëgg la. kon nañuy rafetal rek nañuy rafetal rek moo fi ne koo gis yéene ko jàmm. Mhm. koo xool ne kii tane nga ko nga dimbali ko daal. dëgg la dañuy gën a jëmale kanam. jërëjëf soxna Aysatu jërëjëf ñu ngi lay jaajëfal di jaajëfal waa seen émission bi. jërëjëf ñu ngi nuyu waa Bambilor ñëpp. yàlla saxal gën a may leen amiin yàlla amiin jërëjëf jërëjëf jërëjëf jërëjëf ñu ngi lay jaajëfal di jaajëfal waa Mbambilor yépp mu mel ni euh, soxna euh, Dijak euh, waxtu wi jeex na tàkk tàkk ñu ngi dugg sax ci waxtu jàmbur wax dëgg yàlla. <laughs> Dijak la ma sax. laaj jàkk. bëri fem da la def. ah. mën fem la def. tey tey tey Younoussa du bis mais mais mais Dijak. Uh-huh. laa lingeer uh-huh. souhaité ma ko joyeux anniversaire. kii suñu anniversaire souhaité nañ ko depuis démb. wallaay démb lañu la ñuy souhaité parce que. te xam nga lu ma gën a marqué ci moom. Uh-huh. nee na bu ko kenn euh, yónnee gato bu ko kenn yónnee benn kado bu dul sourire. kese looloo ma jaaxal. non moom sourire la kon loolu mooy wane ni Younoussa wax dëgg yàlla. nitu jàmm la nitu salaam la kii nitu yàlla la xale bi rek. loolu moom xaw ma ko ci woon kon dinaa ko ci yokk. <laughs> Ah, est-ce que yéen topp ngeen Younoussa. topp ngeen noo topp ñu ko nag wax dëgg fii la ñu waale gëstu leen comme dañuy Sénégal gëstu la ñuy def léegi man dama leen wax léegi ngeen def yéen émission sur Younoussa avant muy agsi fii Africa 7 li mu jaar yëpp man boobaa man sax naa leen jox ay Doudou Sané kon yow yow suñu wax jeexagul. waaw dinañ dinañ waxaat incha allah <laughs> ay ca dañ lay daal di bàyyi nga tàggoo kontaanoon nañ lool wax dëgg yàlla ci dalal la ci émission waxtaan ndax nag eh, indi nga fi wax dëgg yàlla waxtaan wu am solo am solo macha allah. Mhm. jërëjëf. Euh, di leen gërëm di leen sant te di wax nit ñi tamit euh, dëgg la réseaux sociaux am na dëgg la dëkk bi metti na dëgg la àddina metti na dëgg na mbas mi sonal nañu mais nañ delloo si suñuy xel. Euh, dellu siwaat à ce qui est essentiel ce n'est pas juste le fait ñu nekk ay ay jullit wala nekk ci déedéet ñu dellu siwaat nekk ay ay doomu aadama mm-hmm. c'est tout mm-hmm. nañ nekkaat ay doomu aadama amaat xol amaat empathie am compassion tey suturaalante mm-hmm. defe naa réseaux sociaux bés bu ñu demoon ci suturaalante rek yegg ci suturaalante après leneen dootul am kii problème nañu suturaalante sàngante malaanu sutura di defaralante te di te daal <laughs> ñu gën a góorgóorlu nañu gën a góorlu daal ci lii ñu suñu maam maam yi bàyyil ñii ni mhm. ñu jàngal mhm. lii ñu fi bàyyi ci jàngat nañ ci jël daal li gën te xam ne ab yàlla suñu borom dinañu dinañu suturaal parce que vraiment nag euh, li nga wax sànq mhm. tiitoon nañ waaye gën nañu gën nañ tiit mm, jërëjëf tiitoon nañ gënoon jërëjëf jërëjëf euh, laajaak ñu ngi lay jaajëfal bu baax a baax a baax wax dëgg yàlla euh, di laa Linguère. Mm-hmm. di la ñaanal jàmm rek ak tawféex wax dëgg yàlla waaye directeur. Mm-hmm. kontaanoon naa de. <laughs> sama xol neexul nag waaye vraiment sa sa sa sa bëla baax na. <laughs> waaw bëla gi di fàttali rek li nga li ñuy wax ne mbirum réseaux sociaux ki ma ko may xaw ma ko sax. Mm-hmm. Euh, dafa am kenn ku mu dimbali mu am wéjur bu góor bu génn àddina bëggoon def sadaqatu jaariya jaarale ko ci man mhm. ma gasal ko teen ñu def ko rek te yàlla tax mhm. ñu gasal ko teen ba noppi mu ne ki ma ki ma boole moom lii de maa ko ñaw bëgg rek na ko yónnu sa sol ci yaramam bi ma koy ma koy gis moo tax na ci yére may gën a sol te rek ne saa yi ma ko solee rek daf may euh, soññaat ne mhm. am na ab taxawaay boo xam ne war nañ ko dikk gën a am euh, lii soxna laa jaag wax rek nañu gën a rafetal métti na métti na te yàgg naa métti. te day gën a métti ci. day gën a métti ci ñi nga xam ne te tey jii ay stabilisateur la ñu ngi génn àddina foo ñu defaraat suñu toogaay foo ñu yërmante suñu suñu biir foo li nga xam ne bu la yàlla dénkee mu nekk as tuur lu mu néew néew néew nga mun ko bokk parce que la ngay joxe du da nga lekk ba suur du da nga solo ba solo ba doyal déedéet da jël li nga li gën a baax ci yow li gën a neex ci yow nga xaj ko sa bopp joxe ko léeg-léeg jox nit mu gërëm a gërëm a gërëm a su ma toogee xëy suba bëgg a jël cent franc di jënd kii mu të mais xam nga euh, man di gis nit muy muy bëgg mm-hmm. di gis nit muy yéeg ci kaw di gis nit muy évoluer ma daf may neex mm-hmm. sama sama mbégte foofu la ne mm-hmm. moo tax euh, nañu nañu bu ñu delloo ci yàlla rek euh, li benn kilifa wax léegi tuubal tuubal ko wallahi li ñuy dund mi mbas bi daañu ci génn parce que mbas mi loolu la ñu woo mhm. euh, nañu nañu woyofal suñu diggante delluwaat si suñu borom bu ñu ko mhm. defee rek mhm. euh, dinañ ci génn gërëm bu baax sama yaay booy euh, soxna laa jaak moom wax na dafa fekk ne ji nga la 2019 Euh, dañu nekkoon ci plateau 2S mu jógee xam fan laa jëgati woon def des kilomètres. uniquement boobu la ñuy gisee mu jaraloon ma ko ma def ay kilomètres. tëdd ma yow def ay kilomètres. ñëw rek pour nekk ci plateau bi. pour waxtaan ak moom yàlla def tey jii jamono di dox ba man ma soxla ko. nga soxla man mu ñëw sa plateau mu toog si <laughs> ko waxee. moo tax lu rafet rek am solo. en looy loo loo bëgg nit di la ko defal. Mm. dëkk koy defal koy defal. Mm. dañoo bëgg nit ñi taxaw nañu taxaw doomu aadama yi dañoo bëgg di dimbali nit ñi nañu nañu dimbali doomu aadama yi et comme ça la chaîne elle est elle est comme ça xalaatuñu woon na bés dina ñëw mën nekk Africa 7 ak yooyu noonu xalaatuñu ko ñun ñu ngi ci yeneen vibes te incha allah ci yooyu la lu baax la ñu xel la ñu xam. loolu la ñu yaree te incha allah loolu la ñuy joxe. sant la gërëm lu baax di sant kër gi ba mu fi mm-hmm. defee de defaguma fi ñaari weer. Mm-hmm. mais sam samay nit laa am. mais mel na ni téeméeri at. waaw <laughs> samay nit laa fi am. defoo fi ñaari weer waaye wax dëgg yàlla Aliou Ndiaye bu toogoon fii noonu la koy waxee keneen ak keneen bu toogoon fii noonu la koy waxee euh, mel na ni def nga fi cent ans ndax sa mbaax ak sa yaatu ak sa compréhension lépp lu muy def xol la koy def Aliou sama nit la li waral sama teewaay bi du leen lu dul lu baax lay def damay tabax benn école ci benn dëkk comme ni may defee rek mhm. mu yëkkati xaalis bu bëri na ma yunu sa maa ko ci dugal ma tabax école ba noppi ne ko man de amuma waaye ci la ma ci sama li ma mën muy tas ko di xibaar génn ñoo toggal la sa télé boo ñu fayul dara sax baax na. ñëw it. man boo ma defee la dara. Mhm. damay fexe xool nan laa la naa yëkkatee ci donc yàlla ñu yàlla dimbali. Mhm. ba liggéey bi nga xam ne ñu ngi koy def ci Africa 7 néew na tuuti na mais gis nañu euh, retour bi ñu ciy am. Mhm. yàlla ñu yàlla dimbali ba pare sol ci ñun xam-xam. dàqal sol sol teey dal. ñun nag ku mu di yow dal sol yow nite. waaye sol yow it euh, li ñuy waxee. mail euh, mail parce que wax dafa jafe ñun ñuy wax tout le temps ma à chaque fois boo ma nee waxal damay tiit parce que damay dama naan est-ce que du ma juum est-ce que ka may digg dana comprendre la ma bëgg a wax mhm. est-ce que wax léeg-léeg ñu ne kii dafay jaayu mhm. dafay wanew loolu yëpp c'est des c'est des yoo xam ne mhm. dañ koy bàyyi xel ba saa yu ñu war a jël kàddu yal na yàlla may digg mm-hmm. ak topp ndaxte euh, ñi ngi ñi fi bàyyeekoo tey ji loolu rek ne wax nañ fi lu loo xam ne ba ilaa yow mi génn nañ fi tey ji waaye saa yoo duggee ci ci réseaux sociaux yi fekk fi seen kàddu saa yoo duggee YouTube fekk fekk seen kàddu nañuy jëfee mm-hmm. euh, di leen di yeesal suñu njaal bu baax ci ummaaj sàmm euh, yi mm-hmm. bi yëpp di yeesal suñu njaal ci waa Canaba di yeesal suñu njaal également ci waa Laayeen yëpp di am nañ njort bu rafet ne incha allah fi doo si lañ leen fekk so sax la gërëm la bu baax a baax sama nit nga <laughs> te gis nañ ñëw liggéey bu rafet bi ñu fiy def Euh, dañuy wax ne da nga neex a tette te koy wax ne orienté wu defal lii defal lii mu koy def. Mm-hmm. donc si le résultat aujourd'hui est est satisfaisant man dama ci dégg rek lool sant la bu baax salaamaaleykum wa rahmatulah. <laughs> Babacar bàyyi sànni xeer yi dégg nga Babacar nee damaa neex a teete <laughs> noonu laa dëgëree bopp man moom mu ngi nii rek sëkk kese laa waaye jaajëfal naa la bu baax a baax Younoussa di jaajëfal euh, ñi nga xamante ni tamit ñoo dugg ci buumu jokko bi kii di Silla nekk euh, Rufisque Alioune Ndiaye doon wootee foofu nga xamante ni mooy Touba ñu ngi koy ziar bu baax a baax di ziar ki nga xamante ni tamit mooy ay Aysatu doon wootee foofu si Bambilor ak ñi bëggoon duggoog ñi doon teewlu ñëpp ñu ngi leen di jaajëfal bu baax a baax di joxewaat sunu njaar rek di ko teg ci loxo mambay lay laay say nekk Alassane ñu ngi lay jaalewaat boobu may di wax ni téléspectateurs yi mun nañu suivre benn émission spéciale boo xam ne c'est di Oustaz Aliou Sall moo ko nar a defar te dellusiwaat ci ci ci jaar jaaru mhm. jaar-jaaru euh, kilifa yi nga xam ne génn fi bu ñu noppee léegi incha h daan fi teew ak ak ak ay invité incha allah. kon ngeen bàyyi ci xel bu baax a baax oustaz Alioune Sall nekk oustaz fii nga xamante ni mooy ci kër gi di si Africa 7 dina leen indil euh, édition spéciale fas yéenee waxtaan ak yéen ci li nga xamante ni mooy sunu kilifa yi nga xamante ni ñoom la ñuy jooy nii te noppeeguñu yàlla na leen yàlla yërëm te xaare leen àjjana. Mm-hmm. oustaz Alioune Sall dina ñëw defal leen si gëstu bu am solo incha allahu bi kon xam naa bu leen changé télécharger seen télé te te teg leen télécommande yi te bu ko xale yi gis bu ko defee ngeen inst añ ba suur installé wu seen salon fas yéene jàkkaarloog sunu oustaz boobu di oustaz Aliou Sall maa ngi jaajëfal nag ki nga xamante ni mooy Babacar Niang di jaajëfal Mariama Thiandoum yow tamit maa ngi lay bëggee bu baax a baax a baax Mouhamed fàttewuma la benn yoon di jaajëfal képp koo xamante ni rek personnel lu Africa 7 nga maa ngi leen di jaajëfal di leen wax ni kenn amul seen fay di ñaan yàlla si réew mi jàmm ak salaam ak sutura ci barke Seydina Mouhamed sunu kilifa yi nga xamante ne nag làkku nañ tey xam naa ne sax seen bët du jóg ci ñun waaye yal na leen yàlla teeru ci yërmandeem ci barke alquran al karim xam naa di leen jox euh, dig daje rek incha allahu rabbi ba altine incha allahu rabbi yal nañ yàlla defal jàmm te génneen ñu fi coronavirus bi jërë ngeen jëf